Sénégal seet nuyu nañu leen yéen suñuy mbokku internautes yéen suñuy mbokku téléspectateurs yéen ñi nga xamante ne lépp lu am ak xew-xew bu munti am fii ngeen di daw si ngir am ci lu leen leer dal leen ak jàmm ci rubrique bi ñu duppe seen actu réew mi yëngu na Afrique yëngu na yëngooti na sax lañuy wax gannaaw ba Alpha konde demee ci troisième mandat am boroom xam-xam yi tuddee ne mandat boobu mooy le mandat de trop kii di Mamadi yaa jiite ab coup d'état dal ci kaw Alpha Condé moomu foofu ca réewum Guinée wàccee ko ca kaw nguur ga gannaaw ba loolu amee jafe na ñuy gis coup d'état bi nga xamante ne njiit yi wala sax opposants africains yi yu bëri ñoo ko rafetlu bu ñu ko rafetluwutil tamit ñaawlu ko dirigent africain yooyu nag wala opposant yooyu nag bari nañ sunu réew fii nii ñi nga xamante ne def nañu ay post ci seen page Facebook di àddu ci mbir moo mule bokk na ci kii di Abdoul mbay mi nga xamante ne ba mu waxee dafa ne lii nii war na tax gouvernement wala dirigeant africain yi xam ne léegi Afrique dootuñu seetaan ñu leen di def lu leen neex bokk na ci kii di Ousmane Sonko dafa ne def na at mu ngi addu ci lii nii mu ngi doon artu waa Guinée ndax gis nañu Alpha Condé ni mu def ba toog ca kaw réew ma deret ju bari tuur woon na ci mu dëkkee woon naka jaay doole ak bundu xataal kii di opposant bi ñu woowee Cellou Dalein Diallo Ousmane Sonko nee na moom nag li muy ragal coup d'état bi doon un de plus boo xamante ne du yóbbu fenn Guinée ndax nguur ga dafay dal ci loxol keneen mu nekk un éternel recommencement ba muy daaneel ay kàddoom nee na mu ngi ñaan yàlla bu loolu dal lii di réewum ginne ak réewum càdd yàlla na coup d'état bi doon loo xamante ne dëkk ba daf fay jaaree tekki bokk ci réew yi nga xamante ne dinañ leen lim ci développement Thierno Bocoum mit kenn demul mu des gannaaw bi Abdoul Mbaye ak kii di Ousmane Sonko ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu ràññeeku ci réew mi moom mi it Thierno def na post ci page Facebook am nee na nii la Afrique nara a dundee saa yu ñu demee ba mu neex ñu wala saa yu ñu demee ba jël njiit gu ñu neex teg ci sunu réew militaire ya ñëw nangu réew ma réew ma delluwaat ca na mu meloon gannaaw loolu seetlu nañu it ne ñi ne ci réew yi wërngal képp ña gën a bari ci ñuy addu ci bile coup d'état mooy ña ci opposition ba ñenn ci nguur yi ñoom déggagunu lu nuy wax waaye daal li ci am ba am daal mooy coowal troisième mandat mu ngi dellusiwaat mu ngi dellusiwaat mu ngi dellusiwaat ñuy laajte ba xam ndax le mandat de trop bi ko gaa ñi tuddee du xew ci yeneeni réew ñu ngi leen di jaajëfal lii moo doonoon ci li gën a fës ci réaction yi nga xamante ne ñi nekk ci nguur gi wala sax ñi ne ci opposition bi def nañu ko